Euh, man la won ak ministre Alioune Sarr ñun ñoo rencontrer rencontré té secteur tourisme ak transport aérien mom lañ gëna touché euh, ci problème bi nga xamné mom le mom mo dal fi ci Sénégal et dal dal aussi ci réew ñu bëri réew yu bëri waxtaan bi dal euh, nekk na waxtaan bo xamné ku nekk joxe nga sa xel ak sa xalaat secteur yi nga xamné touché nañ leen aussi joxé nañ déjà un peu wax nañ déjà euh, naka la leen mbir mi euh, laalee euh, impact bu mu am ci seen activité impact bu mu am ci ay emploi mooy ñii di xëy parce que am na yenn yenn entreprise yoo xam ne déjà commencé nañ wax ñi doon xëy bu nu bu nu xëy au moins temporairement ba ñu am lu leer ci ci mbir mi nee nañ aussi secteur yi nga xam ne touché nañ leen du aérien kese ak tourisme des secteur culturel même le secteur xam euh, BTP bâtiment ak secteur artisanat à commerce euh, ñëpp daal euh, crise bi laal na leen ñoom it waxtaan na nag ci lépp lu jëm ci ay mesures accompagnement li nga xam ne fonds bi nga ne président jël na ko ndogal bu mu jël pour taxawal ben fond, loolu ñuy naan de solidarité ak boo contre effet coronavirus effet économique et effet sociaux euh, pour que nous voyons euh, conséquences yi nga conséquences négatives euh, yi nga xam ne war les ko nous am ci entreprise population yi li ma bëggoon leeral rek fonds boobu beaucoup ak li nga xamné moy budget bi gouvernement bi dégagé pour secteur de la santé wax naa ci si 64 milliards yi du pour riposte économique lolu riposte sanitaire bi la euh, lolu moy li nga xamné ne xayma nañ ko né suñ ko génneewee épidémie bi ñen ko mëna a euh, vraiment def ci yu rëy pour daniel ko le ministère de la santé nat né lolu la wara mëna soxla lolu nak état bi ak partenaire yi euh, dinañ ci jóg financer lolu lolu amuñ ci ben titangé loolu 64 milliards donc riposte économique euh, riposte sanitaire la bokkul ak fonds de solidarité bi nga xam ne nag ñu ngi ciy liggéey wante xamaguñu euh, nattagunu montant yi pour xam ñaata la comme ni ma ko waxee woon démb secteur privé d'accord na ñoom dinañ ci contribuer ci fonds boobu partenaire au développement tam d'accord n'a dinañ ci contribuer ndaxte am na ñu ngi gis tey suba état bi tam dina ci contribuer ak yeneen bonne volonté loolu nag suñ ci tollee ba xam ñaata la xam fonctionnement bi xam ñi nga xam ne ñoom lañ ci entreprise nga xam en difficulté ñoo am ay tolof tolof wala ay ménage wala ay population wala ay ñu doon liggéey liggéey ñi nga xam doon daan seen doole te léegi ñu affecté leen loolu lépp suñ xamee ñaata la dinañ ko wax parce que loolu foog ñu def ay enquête ba xam ñan la touché ba xam aussi partenaires yi ak état bi ak ñëpp ak secteur privé ñaata lañ ci mun dugal pour que ñu mun leen wax loolu ñaata la donc loolu xam naa dinañ si delluwaat euh, li ma leen bëggoon wax rek mooy que ne vraiment secteur privé wane nañ que ne ñoom ak état bi ak population yi ñun ñëpp benn lañ am nañ nekk nañ si ay moments yu jafe donc nous ñëpp dañuy bolo nek ben pour nous avons mbir tolof tolof bu muy am ci ay wala ci ay employés ñi doon liggéey wala ñeneen ñu activité économique comme ay artistes comme ñi nga secteur de la culture wala ay kat yi nga xam ñoo hôtel produits di leen jaay ay marchandises légui ndax ñu mun a trouver ay solution euh, euh, ndax ñu mun a saafara mbir mi leen d'accord nag mooy aussi secteur privé dinañ def ñoom seen document yónnee ni ko li nga xam ne mooy seen contribution lépp lu jëm ci xalaat naka la fond bi ñuy def bi naka la war a doxee euh, naka lañ ko war a gérer et cetera léegi loolu daal moo nekkoon waxtaanu tey bi maa ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ko waxee démb suñu amee ay nouvelles yu bees incha allah euh, dinañ leen woowaat pour mun a partager nouvelle bi ak ak yéen euh, APEX tam euh, waxtaan na ak aussi secteur privé wax na leen que ne lu bëri ci li APEX doon def jarul sax nit ki peut-être di déplacé wu ba APEX war nga ko mën a def en ligne déjà parce que APEX am outil ay yu bëri yoo xam ne déjà mën nga ko def.